asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokku téléspectateurs yi ñu suivre ci Equivox TV à travers le monde maa ngi leen di bëggee di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci yéen leen wax ne nag ah ni ngeen ko xamee sama jigéen yi ma doon àndal tey ci revue bi wala GNJDA waaw tey gisu ngeen leen muy Oulimata dafa voyagé ñu koy ñaanal mu dem si jàmm ñu si jàmm ami tamit dafa dem reportage loolu moo tax moo tax nag tey li ñuy def rek mooy dañ leen di bàyyi ngeen dem. seetaan li nga xam ne ni mooy mooy review titre yi après bu ko dell bu ko defee ñu dellu siwaat nag waxtaan ak yéen tuuti ci li nga xam ne moom la journaux yi indi tey asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 7 avril 2021 dañuy ñëw ak yéen ci likaay suñu làmb la ni xëy tey dooreeti ko mu mel ni ki yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb daal tey xëta mu njëkk lëm ca xëy fësal olof ba ko daan faral di wax lu defa waxu lu ay di njàmbat le xew nag fi mu nekk nii ñépp di ko coow bokk na ci diggante Ama Baldé mu Pikine Modou Lo mu Parcelles mu mel ni ki démb nag ñaari mbër yi moom waroon nañoo def seen génn bu njëkk xoolante ci biir yi bët waxante fan ko war a defee muy seen tiif yi yëglikaay bi di suñu làmb nag lëm nu xëy xamal daal ne na mbiree daal fa mu mujje maanaam ci ab fiasco maanaam pëccëxoo jaxasoo kenn xamatul fooy taxaw wala fooy toog wala fooy aw mu mel ni ki mbir ma moo dem bëpp ay loxo mu mel ni ki mbir mooma nag boo demee suñu làmb da nga ko fekk fekk ko Equivox TV fekk ko feneen ak feneen maanaam mbooloo moo xam ne daa meloon ni ki daal dañ leen ne mbër yi dañuy ba sëgg bëre te mbir ma ab jàkkaarloo kese la mel ni ki daal mbir ma fa mu mujje moo tax nag ña fa nekkoon de saytu wàllum sécurité ba takk deree moom ba ñu dema mbir yee jaaxal leen ay lacrymogène la ñu mujje taal ngir tas la nga xam ne nii moom moo di mbooloo ma ku nekk mën a dem moo tax ni lig Nicolas moom itam daal la moo xam ne daal jàpp na wala boog doom jaa wax ne lii moom du dara nekk na mbir moo xam ne li ko waral mooy ñaari mbër yi ñoo am ginnaaw muy wéli loola mu ngi ko waxee fa nga xam ne moo di ca Equivox jàpp na daal ñaari mbir yi moom ni ñu tax ba nekk nii moom seenub daje ku ne xam na ne du yomb waaye loo ci mën a dégg jàpp na ne ñoom ñaari mbër yi ñu tàngal du doy ne na déet waaye lépp rek nan ko teg ci wàllum sport maanaam daal loolu mooy gis-gisu nga xam ne ni moom di Willy mel ni daal démb seen loo ci mën a dégg moom ak la ko wër xumboon na jaxoon na jaxasoo woon na ba yegg ci lool loolu mooy li nga xam ne moom la nu sunu làmb xëy tey wax nu ko bu nu continuer tamit ci sunu làmb mel ni ki combat bi fi amoon tamit dimanche ji nu génne doxoon ci diggante ma seen ak ka nga xam ne moom moo di Lac de coow laa ngay continuer ba tey ndax yëglikaay bi xëy na nu xamal ne ka nga xam ne nii moo di ëmma seen moom ñamu mere moom moo di estafam jàpp na ne daal dañ ko waroon bàyyi mu def la comme xelam may maanaam mu songu Lac de Guiers bëre ak moom bañ a taxaw di ko xaar ëmma loolu mooy gis-gisam mel ni ki moom ëmma bu meree estafam Lac moom merewul boppam merewul estafam ndax la moo xam ne daal nena moom la mu waxoon démb ca xëy di ko continuer maanaam combat bii daal bokk na ci combat yi nga xam ne ñoo ko dàqal ci carrière mbir ya mu ngi koy leeral sunu làmb moo xëy ñëw tey wax nu ko Lac de Guiers 2 moomu tam keneen koo xam ne nii génn na tey di wax ci moom muy tafaa Gueye la xam ne daal na fi mu nekk nii Lac moom loo ci mën a dégg digganteem ak Gris Bordeaux war naa ne tey itam combat la wax xam ne ku ko tëgg itam daa am lu neex Tapha Gueye numéro un mu faas moo wax xëy tey wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii mook Tapha Gueye ñoo daan bëreendoo di booy kayre moom xëy na wax ca doom ja nga xam ne doon na bëri di wax ji nu génn muy jén juuf kayre booy kayre may baay ba nag mu xëy wax daal ne na doomam fi mu nekk nii daal wala ñoom fi ñu teg seen i bët fenn la ca kaw a kaw daal la gis ndax jàpp na ne daal doomam daa war a dem fekk mbër yi nga xam ne ni ñu ngi ca kaw a kaw bëre ak ñoom yëglikaay bi di suñu làmb moo xëy tey dalal ko moom ma nga xam ne moo di booy kayre mu wax fa keneen koo xam ne ci làmb jooj la bokk waaye mu ngi ca MMA ba muy rëg mel ni ki nag ñetteelam wala boog ay combat yoo xam ne war na ci jëm ak ka nga xam ne moom moo di Patrick yëglikaay bi ne daal ca Singapour lay amee leneen loo xam ne day am tey ci àllarba ji mooy mercredi yi nga xam ne moom la CNC taxawal fas yéene nag di tëgg ay làmb maanaam tey nag 3 millions la ñu teg fa nga xam ne moo ci arène nationale ba maanaam loolu di wàlli làmbi simple mel ni ki CNC booba nag bu ñu demee fa nga xam ne moo di ci Equivox TV moom démb woo te woote na nañu ab conférence de presse maanaam signature contrat dox na ci seen diggante ak ña nga xam ne moom mooy groupe Futur Média ba nga xam ne nii Youssou Ndour moo ko moom yëglekaay bi xëy na tey wan ñu lool ci ay image mel ni ki ki dem Bouba Ndour may directeur programme ba teewoon na ak groupe Futurs Médias yépp daal ñëwoon nañu jàkkaarloog birasee rek ñoom maa nga mel ni ki daal partenariat ba moom Bouba la mu xamle daal dana joguñu ngir wut ci ab xaalis dana déedéet li ñu fas yéene daal mooy maanaam yeneen réew yi boo demee Angleterre football la ñu am di ko taf def saa su ne nga dem Japon ñu nga ci seen sumo ba di ko def saa su ne dana lu tax làmb ji tamit mënuñu koy def saa su ne maanaam ñuy bëre tout le temps nu koy wane ci sunu ay télé direct loolu daal la ñu xamle te itam duñ ca yem de ne nañ seen partenariat bu njëkk itam bokk na ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di presse bi waaye waa Senelec tamit daa mel ni partenaire la boo xam ne bu fas yéenee jàppale ña nga xam ne ñoo di waa CNC ci seen nga xam ne sumb nañ ko bu Korité passé tamit ñu ngay xamle ba tey daal ñoom waa CNC nañ làmbi duur itam dinañ ko fas yéenee di ko def te duñu yemale ko dakaar de dinañ génn ak mbir yi fu mu mën a doon ci Sénégal maanaam région yépp fas nañ fa yéene di dem loolu yëglikaay ba wala boog Equivox TV fa la nuy fekk jooju wax ba tey bu nu continuer dem record record tamit ñëw na ci la nga xam ne nii moom moo di combat bi fi amul dimanche rek ka xëy di wax nag mooy Omes Diagne directeur technique régionalu ndakaar daal ci wàlli làmb la mu xam xëy xamle moom Omes lenn la lag na Lac de Guiers numéro 2 xeex ba la daw moolu bokk na ci ni tax combat bi yegsi fii mu yegsi loolu record moo xëy tey ñëw di wax. lu mel ni kii ñëw na tamit ca partenariat ba nga xam ne ni am na ci diggante groupe Futurs Médias ak waa CNC yëglikaay bi di record xëy na tey ñëw ci yàgg maar ngeen jëf mbokk yi yéen a ko déggandoo ci revue bi nga xam ne moom mooy revue des titres loolu yëglekaay yi xëy tey ñëw ko muy wàllu làmb comme ni ngeen ko xamee nag sunu làmb bi nga xam ne 100 pour cent làmb tey moom la ñuy ubbeeti xëtam mu njëkk ak fa mu ñëw mu diggante Ama ak Modou Lo boo xam ne démb ca Sen TV la ñu waroon daje mu mel ni ki jàkkaar loola woon kese ngir ñu toog waxante ngir wane ne combat bi promoteur bi di koy tëgg ren waaye mbir moom mu te mën a antu la ko teree antu nag image ya mu nga biir Equivox mu nga feneen ak feneen sunu làmb ñëw na ci lenn kese moo ko waral mooy maanaam. mbër yoo xam ne dañoo bëri ginnaaw bëri ay soppe muy Ama ti Moodu seen mbooloo ñëw ba nga démb boo génnee yàgg maar mii di film ne ci caméra bi di monté xam na bu baax gis na démb loo xam ne mosu koo gis ci loo xam ne ñaari mbër yoo xam ne dañ leen ne kaay rek toog ci palaato ngeen waxante pour ñu dëggal ne seen combat bu yàlla defee jàmm day am ren mbir ya mujj ci mbooloo moo xam ne kenn mën a tudd a xam lan la mel ni kon démb foofu arène la mujj woon soppeeku yaa ngi dégg loolu nag bu ñu demee ba ci biir ah léegi Nicolas tamit nekk koo xam ne moom promoteur la bu nga xam ne bu responsable la mu xam ne lii mënta ne te bu bàyyee ñaari mbëri toog si plateau bi après bu mbir mi jeexee wala balaa jeex leneen man na fa am loo xam ne bokk ak li ñu bëgg te làmb soxlawul loolu réew mi soxlawul loolu léegi nekkoon affaire yi nañ ko fi yemale ba beneen yoon après ñu xoolaat nu ñuy programme yi pour mbër yi mën a ñëw toog wax parce que loolu du mën a ñàkk xëy na nag beneen yoon ñoom waa Ligue Nicolas en ko muy ñoom raay ba ak ñoom ñoom mbay Diagne ak ñi wër lig ñëpp defe naa ne du ñu ay ngaaka ci li ñuy def nañ fexe ba ñaari mbër yi jàkkaarloo jàkkaarlooti parce que itam lig loolu bëri na lu mu koy arrivé ci ay combat defe naa ne ku ne yaa ngi fàttaliku diggante euh, Yékini ak nga xam ne moo doon Balla ca Thiès gis nga waaye terewul lépp fexe na ba kon li loolu rek moo fa amoon démb muy mbooloo moo xam ne man yàgg bu démb man wax dëgg yàlla man damaa sax damaa sax mujj jaaxle man man daal Modou amaa ak Ama man de seeni mbir jaaxal na ma waaye nag li ko waral rek lenn dong la mooy boo dëkkee yi dëkk balaa ngay laaj yàgg maar loolu dëkk bi defal fexeel ba defal dëkk bi ba pare ñoom ñaar bu ci ku ci ne muur bi mu gàddoo drapeau Parcelles Assainies nekk mbër dafa défendre drapeau bi défendre drapeau Parcelles Assainies bu baax a baax tax waa Parcelles jël ko teg ko fuñ tegul fen dugal ko seeni xol bu jógee ñu jóg lu mu dugg ñu dugg ci Ama Baldé loolaa ko dal ca Pikine yemul ci ne fàllaye sama baay kese wala zilay sama mag déedéet ba mu ñëwee nekk mbër xam ne mbër la moom itam daa te drapeau Pikine défendre ko comme ni mu ko war a défendre ba tax na bu jógee Pikine kenn du des loolu moo indi li am démb am kon nag loolu moo lay wan ne looy def rek fu la fayda caa baax di nag jaajëfal Luc vraiment ci simplicité am ak itam ah gëm gëmu maanaam gëmum yàlla parce que am na loo xam ne maar bu la arrivé bu doon sama saar yi la dinañ fa ame benn réaction boo xam ne maanaam dañ naan wax nga musiba te moom kenn déggu ko mu wax nanguwul sax a wax man mi li muy nekk nekk sama waaye dama Babacar may ma ko garaawul ba beneen yoon rek après ñu waxtaan mu dem yoonam ma wax ak doomam muy wili loolu moo fa amoon dem di leen nuyu di nuyu waa Mbour yëpp rawatina ñoom raay ak ñi nga ñi nga xam ne teewoon nañ fa dem jóge Mbour géej ñu fa jógee tamit làmb yi passé woon dimanche passé coow li ba tey mu ngi des Eumeu Sène ne na kontaanul wala boog yëglikaay bi ne na Eumeu ne na kontaanul ci staffam moom dañ ko doon bàyyi mu bëri loolu la wax defe naa loolu ku ni seetaan nga vidéo yi mu di ko wax loolu nag ah moom ak staffam la waaye dama yaakaar ne xëy na boobu bi muy wax yaramam a tàngoon mais waxu jooju defe naa waxi biir néeg la woon parce que am na loo xam ne defe naa ne itam yàgg sa staff ngeen koy togg ci néeg ñu ne la stratégie bii ngay bëree ngeen waxtaan ci ba d'accord même boo ca demee bu la arrangé wul bu leen ko wax devant le public maanaam bu ngeen wéetee toogaat di waxtaanaat parce que am ngeen fu ngeen di wéet pour man foofa la ëmm gën a war a mën a waxee ak ñoom mais xayna bi mu wax ak ñoom yaramam tàng na parce que mbëray toll foofu yaa ngi dégg loolu moom mooy li nga xam ne man moom rek laa ci xaw a kii maanaam ñu ko indi ñoo ko daan indi di ko wër di ko bëreloo muy am ay ndam xëy na suñu ko tegloo boobu stratégie xëy na ñoom li ñu jàpp li ma gis mooy Lac degee Guiers dañoo bëri moom deux fois daan ko benn match si la ak moom benn moom xay na dañu jàpp ne kon ëmm amut lu muy per moo tax ñu ne ko kon combat bu ko wanteer waaye nag mbër mu yaramam tàng moo waxee noonu muy ëmma seen Lac moom la ëmma def wala moom Lac la mu def moom kontaan na ci moom nee na bu mbég na ci kombaam te mu koy leeral parce que nee na carrière am yépp mu bëri keroog dimanche moo ko si dàqal yaa ngi dégg donte am na ñoo xam ne jàpp nañ ne Lac de du mbër muy song mbër muy xaar la waaye nag ah, moom mi bëree xam li mu bëri ne moo ko dàqal mu ne su ci lu bëri loola ay waxam la moom Lac de Guiers 2 Tapha Gueye ngeen xam deuxième tigre de Fass ne diggante Lac ak Gris lu neex la war a doon te lu war a mën a nekk la effectivement xalaat naa ñoom ñaar bu ñu bëree dana neex parce que li tax ma xam ko mooy Lac bu entraîné bu ñëw taxaw Gris ñëw entraîné ba taxaw xawma luy xew waaye Gris moom li ma leer moom dina dem ci kaw Lac ak lu mu fay jëlee moom xawuma ko waaye dina dem ci kaw mbir yooyu MMA bi rëg-rëg ñu koy ñaanal yàlla ci Singapour yàlla na gagné Patrick mi mu war a jàqaar lool 3 millions le mercredi CNC tey lay commencé ci arène nationale mu mel ni CNC ak Groupe Futurs Médias si yeneen benn partenariat boo xam ne ñu ngi ñaan yàlla comme ni ñu leen ko posé question yu démb rek yàlla nañ ko réussir parce que tamit Groupe Futurs Médias nekk na benn euh, benn groupe de presse boo xam ne ci Sénégal wax dëgg yàlla mën nañ exemple la tey parce que ah gis nañ ni ñu taxawee ci wàllum audiovisuel bi presse écrite bi yaa ngi dégg wàllum rajo presque en ligne lu ci ne dugal nañ fa seen loxo teg fa ay sénégalais ñuy liggéey te dama naan yàgg maar ku def lool ci am réew rek di yokku maanaam di wàññi semence su dëkk ba di yokku emploi kooku jar na jàppale kon di Futurs Médias ak seen seen partenariat boobu daal yàlla na ci réussite kese kese topp loolu lañ leen di ñaanal mel ni ba tey bu ñu demee record tamit yaakaar nañ fa lag ak ëmma omes nee na corps bi la lag doon daw moo tax xëy na li am am ah, loolu nag technicien ko wax parce que moom mooy directeur technique régional Dakar ci wàllu lam Omar Diagne di Omes waaw lamb daal loo ci mën a dégg am na calcul parce que du xeexu mbedd comme ni ma koy waxee ba tey partenariat CNC groupe Futurs Médias tamit ñëwaat na ci moom record ni ñaan rek mooy ndam na ci topp rek ñu fexe daal def ko ci defin bi nga xam ne nii pour satisfaire sénégalais yi la bu ma tamit wax na ci Equivox TV lu am solo maanaam football na ko anglais yi joxe di ko dund saa su américains yi boo demee seen basket ak seen kër la xaw ma nu ñu koy tuddee nañ ko joxe cër nga dem Japon seen sumo boobu ñuy def nañ ko joxe cër booba jàpp na ne làmb ji ko war a joxe cër maanaam muy am toujours sénégalais di ko mën di dund di ko seetaan ña nekk à l'étranger ñépp kon defe naa kon bu partenariat tamit yàlla na ci ndam topp yàgg maar di la kontaane di nuyu téléspectateurs yi di leen balu ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp lépp lu ñu fi def muy njuumte ñu leen koy baal lu ñu fi def mu baax ngeen ñaan ñu yàlla yàlla gën ñu ko yokkal parce que tamit ay sénégalais ay nit lañu danuy jumte nit matul maa ngi ñaanal ñëpp jàmm mais Khadiros Ndiaye ca Allemagne sama jigéen boobu duma ko fàtte maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax doomu séréer boobu maa ngi koy jaar di ko ñaanal jàmm di nuyu ndongo Fall depuis itali waaye Serigne fàllu ñaa tamit duma ko mën a fàtte ca Maroc waaw kooku tamit sama xarit la suma waay waaye Omar Tawa ah dem la ma solal ñépp ñu ko gis nañ ma kawe na doomu ndeyu saaliyu xulle borom marsa salem borom garniture yu baax yi Omar Tawa maa ngi lay bëggee bu baax a baax ba di la ñaanal jàmm di wax ne daal yàgg maar senegal yàlla na fi yàgg yàlla yàggal jàmbar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam